bari na ay candidat yoo xam ne kan ñoom dañoo samp seen ndënd ba tax na kan ñoom fas yéene dagaadu batt askan wi waaye nag gis ne sax loolu lu normal la waaye nag kenn liñ duppee wàllum adversité nekk na ci géopolitique bi nga xam ne daal nii nag wala nii day tax rek mbir mi daal di salfaañi enjeu bi nag maanaam yaatu na yaatu bu nga xam ne ñu bari daal bëgg na rek bokk ci donkaasi gi kon sax naam ñu baree bëri ñaga ca waaye itam adversité ci nii mba ci nele mën na yàq parti wala coalition ba tax na sax amit ñoo xam ne ci présidentielle bii wàllum adversité dañ koo gëm gëm bu nga xam ne lam leen nar yàqal bari na majorité présidentielle bi ak ña nga xam ñoo bokk ci ko jegi ñoom duñ ci rëcc am ñoo xam ne tamit nag gis na ne wàllum adversité day nekk ponkal yàqukaay bu nga xam ne kat bu ci daal di duggee rek parti ba yàqu ndax tànneefu premier ministre bi di Amadou Ba am na ñoo xam ne dañ koo ñaar ñaawlu am ñoo xam ne kat nee nañu kii nag moom daan defanteeg moom ba mu fa waaye ñu gis ne kat lii nag moom guerre bu nga xam ne baaxul ndax ci nag moom dafa mel ni akum nduxum day manque parti di ko yàq waaye ñu yaakaar ni tamit adversité amat ñoo xam ne sax lañ ciy bëgg daal mooy fexe ba la nga xam ne kat moo nekk seen nit gi xool génne ko kon tamit candidature ci nga xam ne kat mooy élection bi nag moom dafa nekk wàllum leadership ndax diggante pouvoir bi opposition bi ñoom kenn du may sa moroom dara ñii nag moom bëgg a yàq image kii kenn kii nag moom maa la ko dàq kon ci nii wala ci nee ambition légitime nga xam ne moo am ci wàllum politique naam day ay soppeeku waaye tam bul defu nànk yàq te sax loolu day yàqum réew phénomène bi nag moom bëri na lool ci ñoo xam ne kat dañ ko def waaye ñu bëri dañoo war a xeltu xool ëllëgu nga xam ne mooy askan wi ndax lool ci boppam moo la war a amal solo waaye am ñoo xam ne kat dëgg-dëgg loolee sax fulaaluñ ko yaakaar nañ kat loolu mooy jeu politique bi déedéet ñi xam ne ñoo ay candidat ñoom ci réalité yi war nañoo xool li nga xam ne mooy jafe-jafe askan wi waaye ñu bëri dañ cee mel ne lu ci daal di gumba tëxlu te waxuñ ko sax defuñ ko sax priorité kon tamit ci laataa ñu yegg ca ñoom waxtaan la ñu bëree bëri gis nañ ne laataa ñu cay yegg ci candidat yi ñii daañu xaxarante wala sax daal di yàqantey der ba fexe rek fàtte li nga xam ne mooy yitteel askan wi